monsieur le ministre bañ a Sénégal du Dakar quest wala Voilà qui est du coup nga xamante Bien mi ngi ma taxaw rek nan ma war nañoo defar li war nañoo defar la. monsieur le ministre y a une banlieue très proche ici qui s'appelle Pikine boo doxee tu entres à ginnaaw raay euh, ku nekk xam ni 2012 bi le président Abdoulaye Wade di ñibbi Karim Wade am na lu mu fi ci walu infrastructure pavage ba fa nekkoon noonu la ko rogné yóbbu ko égalé wuñ ko tek pavage bi dafa waroon dugg biir ginaaw ray monsieur le ministre comme niñu la la euh wax deug yalla euh, ñu bëggone rek ginaaw ray aussi soriwul mi ngi ni entrée bi moy entrée poste Thiaroye Thiaroye hôpitalu camp bi lolu matul sax 2 kilomètres té kenn du ko défar dañ leena faté nous vivons dans la totalité de, de, de, de noir nous vivons amuñu tali amuñu yoon amuñu dara Lol n'ak dina ci jaare rek wax ni am ko ko xam lol di ku bax te monsieur le ministre n'ak am nga collaborateur bu bax muy le ministre Abdou ndene Sal. monsieur le ministre ministre kat na naa jékki-jékki te tok ci ginaaw donc nañu koy nañu koy bayyi xel di jàppale ñepp ciow bi mu amé ginnaw ray ci terre bi lu ngeen tabax ñu toj je l'ai appelé mu bayyi limuy def yépp ñew dalal xalé yi ba xalé yi dal donc lolu bo togué dina la ko wax ndax nit ku bax la di wax ni euh, koku ñuy wax met Moussa Diop momit na gor yi amul digënté Pikine ak Kër Massar na yokku kaar yi ndax mom fu mu tok rek nee na moom dàq liggéey ci àdduna donc na gën a góorgóorlu ci li muy def parce que nit boo koy jugé da nga koy xam moom xam na li may wax deful dara dégg waaw monsieur le ministre sama doléance xam naa ni jël nga ko en compte mais comme sama askan dañu may seetaan te sa xarit bii nga dendal di la ministre Abdoulaye Daouda Diallo moo ko jëloon en considération ci budget te defaru ko euh, léegi ma bëggoon diggante daqaar ngooñ ak Njonge wala diggante.

de la même manière le ministre Ablaï Daouda qui avait procédé de la même manière que le grand ministre Karim Wade, moi je pense que yaa ngi Ningle ñu ngi lay ñaanal yàlla ndax wax dëgg yàlla xam nga mais ngi bëgg tamit profiter de occasion de monsieur le ministre le coût du transport est très élevé ci terre donc revoir parce que wax fa de yàlla Pikine Tëngéej 3000 francs ken du la ko jëlal yokki oto rek nga fi def ci tali bi wàññil di la wax ni aussi le BRT nekkul pour pour ñun pour waa Géejawaay la donc je pense que damay revenir ci met Moussa Diop wax ko na gën gor góorgóorlu dugal ay car yu gëna bëri dans la banlieue parce que c'est très important tay bu ñuy banlieue proche bi nga xamantene mom lañ am muy Pikine mo gëna forger Dakar parce que tout ce qui était à Dakar te sonn nara sen kër yi gëna a cher affité bi cher euh, luwaas bi cher ñooñu dañoo randu wat, ñëw diggante Pikine ba Kër Massar et vous avez fait de très grandes villes ni ni comme lui Abdoulaye Wade waxoon rek euh, Sénégal dañu mën tabac tabax ay kër yu rafet te léegi ñu ngi koy tabax ci booru Tëngéej yooyu donc encore une nouvelle fois les cars de transport dem Dakar dem dik ou Sénégal dem dik comme vous voulez euh, maa ngi lay sante, di la di la gërëm la wax ni wax dëgg yàlla euh, solo pavage bi daal bu ñu sañoon mu mu dëkk si euh, biir ginnaaw raay euh, ñu waxaat la rek ni la Dakar du moom rek mooy dëkk jàllal ci biir réew mi liggéey parce que loolu moo tax ñu teg la fi ñu la fa teg ñoo ngi lay gërëm di la sant je vous remercie monsieur le président.